والقلم وما يسطرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yàlla dafa dogal ne tey ñu am ay gan yu tedd jóge ci réew ma ñëw ba fii waaye ñooñu euh, ñi nga xam ne dañuy jànga jàngale alxuraan di ko bind mais incha allah dinaa leen jox ñoom ñu gën a leeral lan mooy seen tànk incha allah. Euh, ñu ànd ak suñuy kilifa euh, Serigne Sam Mbacké muy liggéey ci wàllu wàllu mbootaay wàllu mbootaayu daara yi muy fédération. maa ngi waxee ci turu C3S euh, c ab société la boo xam ne moom day liggéey ci weeru ci wàllu weer ak aluminium ñu te lu lu ëpp ci weer rek weer euh, yi ñu def ci buntu yi ak palanteer yi ak aluminium boobu daanak société boobu moom moo ko yor léegi nag société boobu yàlla dafa dogal ne ay nitu daara ñoom ñoo ko moom ay sëriñu daara comme ñun ñoo doon euh, nekk sëriñ daara ba pare di jaay di yaxantu yàlla dogal liggéey ba barkeel ba yaatu nekk société bu mag a mag comme que nag euh, société bu ci nekk da ngaa warloo ak askan wa nga nekk mu di delloo di jël ci société bi di delloo am na ñoo xam ne ñi ngi koy defee ci wàllu euh, jàppale bëri ñii jàppale sport ñii jàppale woykat ñii jàppale nangam société bi nag comme que nag ñun waa daara lañ bu ñuy jàppale ko ñun waa daara la ñuy jàppale léegi nag ñu ñu daal di xool mu ñu xool ba ban fànn lañ jàpp ne fa la ñu war a jàppe ñu gis ne de mbind alxuraan barab bu mat a jàpp la ci jamono yii ndax Sénégal day dëkk boo xam ne niñ gisee alxuraan nit ñaa ngi koy gën a jox gëdd ñu ngi koy gën a fonk boo xoolee tari bi ak tajwid bi ñu ngi ciy am ay ay jéego yu mag a mag waaye dafa mel ne sans compter nag bu dee mbind ma lañ ci amoon na kas néew ma ngay dem moo tax njariñu bind mu ci mu ci ko jàng alxuraan mbind bi day tax mokkal gi toog loolu kon loolu ñu ne kon nañ jàpp kon ci mbindam alxuraan ñu fexe mu dellusiwaat moo tax ñu tudde ko yaatal mbindam alxuraan bokk na ci tamit yoon yi nga xam ci ne jàpp nañu buñ ci jaaree loolu mën naa di ñu gis ne ba ca jiitu ñu gis ne donga yi dañoo amatul téere yu yoo xam ne mën nañ cee xool di ci roy bind ndax téere yi ñuy jàngee léegi day téere yoo xam te ni dañ koo jëggaani te ay machine ko bind kon xale yi duñ ci mën a jàng bind ndax xale moom bu xoolee képp sax mi rek day man te amatul lu mu xoolee kon dootul am lu mu bindee loolu loolu loolu bokk na ci kon société bi wax ne kon naa tàmbali muul ay téere mu léegi nag euh, kon pas-pas bi mooy mool kaamil bu mat sëkk ñu séddale ko ba mat sëkk ci daar yëpp waaye nag comme que bind ab kaamil ba toppaat ko day liggéey bu yàgg boo xam ne kenn oyofu boo topp ko topp gi dafa jafe rek nga xam ci ne kon téere yi pas-pas bi kon nañ xam ne rek mooy dañoo fexe ba dañoo bëgg ba téere yi jàppandi ci dongo bu ci nekk loolu nag moom lañ tàmbali daaw indiwoon nañ xamayata ak xasamia ren tamit ak ak tabaraka amoon na ci sax loolu lañ continuer di ko indi ba léegi lu ci pare rek dina ñëw lu bu ñu ci eggee sëñ Sam dina ko leeral waaye nag liggéey bi nga xam te ni moo ci gën a siiw mooy liggéey bi nga xam te ni moom ab concours la ndax dañ ne ay nit soo bëggee ñu sawar ci dara dañ leen ci tegal am neexal société bi nag organiser ab concours boo xam ne at mu jot léegi sax dañ ko yóbbu ba ñaari at waaye at mu jot dañuy organiser concours mu ku dàq bind ci Sénégal mu ñu jox leen neexal. ah bu ñu ci eggee dañuy woote képp ku bëgg a bokk ci ci concours bi da ngay bind aw xët da ngay jël sa feuille blanche ma sa këyit du weex mu nga bind ci lu la neex ak ni nga jàpp ne nag noonu noonu nga war a ak sa loxo nu mel bu ñu tànnee ba pare nag soog a def ski bi loolu tamit incha allah des na ko leeral ni ni ni amee yëpp sëñ bi dina ko leeral. kon daal lii mooy li nga xam ne société bi mu ngi ciy góorgóorlu jàpp ne bu ñu jàppee ya mbindam alxuraan dina dellusiwaat ba ba mel na meloon ci daara yi. ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen jottali nuyu waa fédération bi fédération bi Souleymane mi moom yaa yore fii ci wàllu aussi bi ñuy ñëw fii euh, Ibrahima Fall mooy moo yore li ay ci wàllu région bi. au niveau national lépp lu jëm ci wàllu concours ak rawante alxuraan man maa ko yore au niveau ci Sénégal gi yëpp. Euh, bi ñu jógee société bi C3S sëriñ Mamoun mi ci ci ñoom la bokk bi ñu jógee pour liggéey ak daara dañoo jaar ci fédération bi di liggéey ak daara yi ci loolu moo ñu indi fii tey ni mu ko waxee dañ seetlu ne alxuraanul karim dafa am ñaari tànk muy jàng ak bind ñëw ma sànd ci jamonoy Seydina Muhammad alayhi wasalaam ba tey jii xam ngeen ne alayhi salaam njëkk mu fi jóge alxuraan karim lépp bind nañ ko saaba yi ku ne am na lu bind am lum mu ci yore ñu di ko sàmm di ko sàmm ba ak si fi tey maa ngi koy wax rek Souleymane mi sëñ Souleymane bi ma woowee ma dégg mu sant jaane dama jàppoon ne ñu sant jaane fee rek lañ nekk ma ne ko man euh, sama baay ki ko ki mbind kaamil suñu Asan Jaane la sant xam naa ci maam mi ay mbokk lañuy nekk dégg nga kon euh, ñu xam ne loolu moo doon aada ci réew mi jàng alxuraan karim ba mu jeex nga mokkal ko mën ko bind te doo ko gestu doo ko xool fenn bind ko par cœur loolu moo fi xewoon démb dañ seetlu ne nag dañ dem bàyyi jamono loolu dafa tàmmulee jeex daara yu yi yi ko doon def sax yu ci bari dañ ko far bàyyi rawatina yi nga xam ne nag daawuñ ko def société bi nag comme sëñ maam ni mu leeralee comme maanaam dimbal mënul ñàkk sooy dimbali da ngay xool fa nga jàpp ne fii moom kenn nekk fi nga nekk fi suñ borom dogal na wàllu bind alxuraanu karim moom amul kenn ku ci yëngatu ku dul moom ci loolu mu ne day dimbalin ak daara ci wàllu pédagogie ci wàllu jàng ak jàngale waaye jaare ci delloosiwaat bind alxuraanul karim ci loolu ci la organiser concours pour rawante ci bind alxuraanul karim concours boobu nag maanaam bii mooy juróom-benn la at ñu di ko def concours la boo xamante ne bii mbooloo mu baree bare bare ñu ngi ciy bokk. concours boobu nag maanaam ngir nga bokk ci day laaj yu bari ba ci jiitu mooy da mokkal alxuraanu karim ba mu jeex ndax lan laaj yi bu ñu koy defar fone ci alxuraan lañuy ñuy laaj dañ koy laaj bi dañ koy bind. def ko ci benn enveloppe kaste ko candidat bi bu ñëwee day jël enveloppe bu ko neex su ko daajee lu mu ca fekk loolu lay bind kon laaj na nga mokkal alxuraan jëpp ngeen nga bokk ci concours bi muy benn ñaareel bi laaj na itam nga mën nga mën a bind alxuraan ni ko war a bindee ndax xam ngeen ne alxuraan ak langue arabe bari na lool ay baat yu ñu wute nu ñu koy bindee bare waa ne ko dégg arab te soo ko binduloo alxuraan ko mu yàq ko te xam ngeen ne itam la mokkal alxuraan karim bind ko fii boo doon laa julit julit boo gis daanaka su dee téeméer mën nga ne juróom-ñeent fukk juróom-ñeent yëpp mën nañoo mën nañoo tari faatihatul kitaab bi waaye xëy na soo ko doon binduloo dana ci bari ñoo xam ne mënuñu bind na nam dañ ko war a binde kon ñu xam ne bind aussi lu ñuy jàng la dégg ngeen kon tam ngeen ko bokk concours bi faaw da ngay mën a bind alxuraan xam-xam bi koy jàngale la ñu woowee rasmul quraanil karim loolu faaw candidat bi itam jàmbaare ci su paree itam faaw mu jàng nan la ñuy maase baat yi baat yoo xam ko xam ne ni koy maase dafa am règle boppam baat bu ci nekk nan lañ ko war a maase nan lañuy war a dugalante nu ñu war masalan waa ma bi ni'mati rabbika fa haddis boo koy maas fa haddis ngay maas loolu xam-xamu dabt moo koy jàngale lu waral ñuy maas fa haddis sa sooy jàngayoo fa haddis loolu ab xam-xam la laaj na itam candidat bi jàng ko loolu nag société bi ngir sawarloo ñiy bokk ngir ñu mën a jàll ci concours bi day def ay formation di tàggat seen daara yi ci xam-xam yooyu ngir ñu man ko kon ñu xam ne concours bi ci la c 3 di dox bëgg seen daara yëpp ànd ko ak moom fexe di mokkal alxuraanu karim man koo bind te duñ ko xool man ko maas nañ ko war a maase aussi itam ñu di ko bind mbind mi ñu xool mu nekk mbind mu rafet mbind mu rafet ñu bëgg ko gis ngeen lii ngeen gis kaamil bi jusu bi ñu leen dox ki njëkk a jël première moo ko bind ki jël première ci concours bi édition bu njëkk ba ka jël première moo bind lii lii machine bind ko ab xale moo ko bind dañ bëgg nag ñu dem ba lii tisaaroo ba ñu bari man ko loolu moo tax charité moo tax société bi di di dox Euh, ak délégation bi nga àndal ak jóg bi la tax a jóg muy alquran ngeen di ci dimbali doomu aadama yi ñu ci sargal di wane ne seen ñëw gi alhamdulillah defar lislaam la ndax lislaam dafa xaw a tumaranke fii kon nag su ngeen demee ba xalaat ba ñu ñëw fii suñ xol sedd suñ xel dal na ah kon nag duñ ci mën a teg lu dul sant leen gërëm leen ñaanal leen tànk yi jàmm ñu ngeen dikkee yal na ngeen ko delloo lépp liñ ci sabab loolu liñ ci bëgg rek sama borom defal ñu ko di jaay rasulullah maa ngi sant bu baax eh, doole sant nag ci sama mbokk mi yore ñu fi man seen taalibe la nekk fii ci usuy mm. di diglu ndigal sëñ Tuubaa rek mu mën ko def mooy suma nekk fii addi nag xaw naa sa kan tuuti waaye teewu ci tam fuñ toll yi taalibe rek lañ ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di feddali kóolare suma diggante ak yow ak mbooloo mi nga àndal maa ngi di nuyoo ku nekk turam ak sant Euh, di leen gërëm euh, di ne gan yi fu sori maa ngi leen di masawu coono waa di leen sant ci jotaay ji ndax seen kàddu kàddu ju rafet la kàddu ju jara seetlu ndax ni ngeen waxee ni ngeen waxee ci alquran noonu la euh, lu nekk ni mu ñëwee nga toppee ko noonu nga manee ko noonu moo gën parce que li ngeen waaye li ngeen waaye fi am na toll nañu fi nga xam ne resté alquran rek moo am waa mbind moom mu ngi tey ñoo ànd mu ñëwee am na ñu daan bind am na ñu daan resté waaw nu ñu dem ba toll fi nga xam ne euh, resté rek moo nekkoon suñu mbir ñu xaaw euh, mbind kon bu bind ñëwee eh, day lu am njëriñ day doon lu am njëriñ ci ñi nga xam ne ñoo fa ñoo nekk ci alquran di am kàddu mbégte bu rëy ndax téere bii di alquran téere bu ñu war a xam la yàlla daf ñu ko bind daf ñu ko yónnee pour ñu xam ko yónnee wuñ ñu ko rek pour ñu jënd ko teg ko noonu ci néeg yi déedéet dañ ko war a xam chaque fois damay wax ne bu ñu ñëwee sa kër jël benn leetar jox la li nga njëkk a def di nga dajji leetar bi nga xool leetar bi lu si nekk bu dee seg la bu dee convocation la lu mën a ko doon di ko xool alxuraan nag leetar la leetar bu ñuy bind la dañu war a pour xam ko comme ni mu ko waxee ñu si bëri dañ koy mokkal waaye bind ko duñ ko xam surtout jamono ji ñu si bëri njàngam gumba la ñuy jàng boo waxee tëral xul a'uuzu bi rabbil falaq ñi tari ko xul a'uuzu bi rabbin tari ko isaa ja ani ko waaye boo leen wax bind leen ko duñ ko bind mu nekk comme ñaari tànk yooyu nga wax la alxuraan di doxee danga koy jàng mokkal ko waaye ci biir mokkal bi tamit danga koy xoolaale bu baax nga xam ne soo ko doon bind di nga ko bind te doo ko xool fen loolu mooy mokkal mokkal bi ñaar la mokkal nga ko ci làmmiñ bi waaye mokkal nga ko tamit ci bët bi xool na ko gis na ko xol bi mën na ko waaw kon nag loolu ngeen ñëwaat andiwaat loolu ci askan wi ñi ngi koy rafetlu di leen ci sant di leen ci gërëm. tabaarakallaahu muy li ñu gënoon a manqué fii ci département bi muy bind. waaw yaakaar naa ñaari côté yëpp mm, jumtukaay yi ñu war a bindee taxawaay biñ ci war a def yëpp amul moo tax nag buñ ñëwee gis ñu ñu orienté ci yii fuñ ko xoolee war ko mën a bind dañ ci sawar lool war ci mën a yar yi dimbale leen ci bañ man ko ndax li kii wax rek alxuraan su ci bind jogee rek léegi mu raaf léegi tey mu raaf arab yi dañuy wax ne lu ñu bind mu sax waaye loo bindu rek dafay réer kon yàlla nañu yàlla dimbale seen tànk yi nekk tànk jàmm bu ngeen fi dellusiwaat ñu génneel leen ci bind yu rafet rafet incha allah lu lañ bëgg. yàlla fay. suñu gan yu tedd yi yàlla na yàlla delloo leen ak jàmm. ñu egg foofu ci jàmm. yàlla fajal leen seen aajo yëpp. Euh, lii lu rëy la. parce que mënoon na mënoon nañu ñëw ñu yem Ziguinchor wala ñu yem Bignona rek dem parce que ñun fii dafa ruxee lool mais def nañu effort depuis ki suba ñu ngi may woo ñu ngi may woo ñu ne ñu ngi ñëw kon vraiment def nañu effort bi egg si fii usuy waaw ak fa Ibrahima Fall la ñu doon jokkoo yàlla def Ibrahima Fall moo tukki moo joxe sama tur kon man ma def li ma ci man ñaan yàlla yàlla di ki sant yàlla yàlla mi xam ne yàlla dogal na ba jotaay bi am na yàlla la mënoon na dogal ne jotaay bi du am waaw mais ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant effort bu rëy ngeen def waaw aussi eh, lii mel ni eh, ay nit jóge fale ba fii affaire wax mbindum jàng alquran loolu day am mais mbindum alquran moom xalaatuñu ko woon sax waaw yàlla na yàlla fay leen fu mu ne ni ni ngeen ni ngeen eggee fii ba ngeen waxuñu ko léegi su suñu xel yi dañ kii nekk fu ne nii ustaas yi bu ñu ñëwee dañuy dañuy tàggat xale ci lu mel noonu le waaw vraiment yàlla moo leen di fay yàlla moo leen di jàppale di ñaan yàlla yàlla yàlla indi xéewal yàlla fajal ñu aajo yi sutural ñu àdduna àllaaxira yàlla barkeel euh, barkeel ñëw ci suñu dund waaye suñ doom yi yàlla barkeel leen waaye alquran bi ñu mokkal ko ci jàmm insha allah alhamdulilahi rabbil ربك بمجنون